jërë ngeen jëf euh, mbokki internet yi daleeti leen nekk euh, jàmm yooyu ñu ñuy topp suñu seen bi di live Dakar 221 way leen te abonné partagé ngeen like euh, vidéo bu baax a baax dikk ak yéen la sa fes ginnaaw kàddu yi Ousmane Sonko yëkkati rek jëmale si France jëm rek ñeel ñi nga xamante ne si na ñoo fi nekkoon moo doon caaroy 44 nekkoon ay trahir Sénégal te waa France tamit am nañ sa joxale woon moom kooku di Ousmane Sonko yëkkati kàddu wax na rek nan gën a joyante ñoom ba jox leen seen àq ak seen yelleef ndaxte nag mbir ma daata nay ah, met lool su ñoo xamante ne si ne ñoom la ñuy woowee ay tirailleurs sénégalais moom koo kenn Ousmane Sonko yëkkati kàddu si paak téwetam jëmaleeg si waa France ñooñe naka si noone rek lanu nemmeeku tamit moom koo kenn Ousmane Sonko ginnaaw rek ba mu daanelee ay kàddoom lasa koke di bugaan gay dani borom njiital gem sa bopp Dati daati yëkkati rek la nga xamantene si na modi ay cadeau jëmale ko timin ci ki nga xamne mom modi ousmane sonko mom koke di bugaan gay dani muy xamle na rek ousmane sonko bala nga lijeenti ciaré 44 nga lijeenti rek li fi amone la xamne daati wul yag dara 2021 rek jëm 2024 ci ay bakkan yu xamantene rek fi won la da ngay jot ci nguur gi kon nag yaakaar naa nga jima a lijjanti loolu moo gën sax ngay lijjanti la nga xamante ne si ne lu yàgg la mooy caare 44 ay tiraay Sénégal yu xamante ne si ne das leen a boomoon moom kooku di ngay dani yëkkati ko jëmale premier ministre bi di Ousmane Sonko teg sa nag na nga fexe rek ba xamal lu la xawoon sa protocole zoru bu moom nga xam ne moo gay dani daal di yëkkati kàddu yu mel noonu te xam ne su ne dafay génn di yëkkati rek li nga xam ne ay jëmale ko si gouvernement bu bees bi moo xam Ousmane Sonko la wala président Bassirou Diomaye Diakhar fay moom kooku di Bougane Gueye Dany